salut les amis ziar naa leen bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast wolof tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof. alors ñoo ngi ci weeru avril saison 7 épisode 14 la ñu nekk tey nii alors comme ni ñu koy defee samedi bu jot nag. dañuy dalal ay invité yu ama am solo tey nag ñu am fi ñeenti jeunes yoo xamante ni ñoo ngi yëngu ci wàllu xarala yu bees yi seen startup te tudd euh, Notix su ma jumee nag ngeen ci ni ma ko waxee ngeen ngeen rectifié ma alors euh, ñoom nag ñoo ngi nekk ci euh, Fab Lab Fondation Orange bi nekk fii nii ci Sénégal man nag personnellement ma leen di woowee les quatre mousquetaires parce que voilà quatre lañ te ils ont fait quelque chose de extraordinaire alors ñu def nag benn innovation bu mag bu ñuy wax toolu kër maanaam fexe. ba nga mën a am sa benn jardin bu ndaw ci sa biir kër euh, moo xam nga nekk ci benn immeuble moo xam nga nekk ci sa benn appartement ak lu munti doon nga mën ko jëf nga mën a jëfandikoo xarala yu bees yi pour toppatoo sa euh, sa jardin bu ndaw boobu noonu saytu ko ba ba lépp jaar yoon alors ñooñu nag def lu ni ñoom laa invité tey jii nii ci podcast Wolof Tech bi Pape El Bekri Diédhiou nekk designer ah, xam naa dinañu expliquer après lan la lan mooy liggéeyam expliquer ñu ci en détail lan lay lay liggéey exactement ci biir startup bi Pape El Bekri ziar nañ la dalal ak jàmm ci podcast Wolof Tech. salaamaaleykum maa parce que c'est mm-hmm. euh, bokk ci émission ok macha allah mhm. alors. suñu deuxième euh, suñu deuxième mousquetaire bi nag mun naa wax mousquetaire moom moo ngi tudd ba Boubacar Santara nekk électronicien moom aussi bokk ci start bi nga xamante ni moom moo nekk Nautix Boubacar nuyu nañ la dalal ak jàmm ci podcast Wolof Tech. oui euh, nañ ci invitation bi ah. ok. merci Boubacar alors euh, mais Boubacar je ma yaakaar ne moom tey sa koor gi da ko sonal quoi mais y a pas de souci dinañ <laughs> suñu troisième invité bi nag moom mu ngi tudd François Meng nekk opérateur machine euh, moom tamit dinañu expliquer xam naa li muy liggéey lan la exactement ci biir startup bi François ziar nañu la. maa ngi delloo ziar. Mhm. <laughs> di rafetlu waat euh, émission bi. c'est un plaisir aussi tamit ñu mën a wax. Euh, bon suñu liggéey bon vu ko tout le temps on parle français donc euh, mbégte la tey ñu mën ko ñu mën a exprimer wu en wolof euh, ñëpp ñeneen ñi nga xamante ne ñu xam carrément euh, lan lan lan mooy njëriñ bi et tout je pense que tey bi ñu ko mënee wax ci wolof. dina mën dina mën a servir bu baax a baax. Mhm. Euh, commune la communauté quoi. Mhm, macha allah ça c'est extraordinaire alors on sent que euh, bu euh, François lekk na nga lax bu baax a baax a baax laa moom dañ koy sant sax ci voix bi quoi. <laughs> non non mais mais càq-càq yaa ngi ñëw càq-càq yaa ngi ñëw indi suñu <laughs> ok amul benn problème. Ah bah oui alors suñu invité bu mujj nag euh, maanaam suñu quatrième mousquetaire bi moom moo ngi tudd Pape Alioune Guissé euh, nekk nag sama mbokk la sama mbokk développeur la man c'est mon ami sama mbokk la xam naa ne man ak moom dinañ déggoo quoi Pape Alioune nuyu nañ la ziar nañ la. Euh, maa ngi delloo chaque wér mhm. a pas de souci amul benn problème on est ensemble. ok alors sa voix bi sa micro bi nag xaw na faible tuuti je sais la mais bu fekkee mën nga ko defar tuuti comme sa auditeur yi gën la mën a dégg bu baax a baax. que fii baax na de peut-être xam naa micro bi. voilà ngi door a baax mu ngi door baax léegi nag ah, ça ah, ngi ñëpp di siyaar ñëpp fii di ñëpp. ak di bu baax initiative macha allah da ñëw da ñëw da ñëw daal da ñëw mën lool. <laughs> macha allah macha allah. rafetlu nañu affaire bi. ok macha allah c'est bien c'est bien c'est c'est cool c'est merci beaucoup ndax ci li ngeen accepté invitation bi ñëw tey jii nii waxtaan ak ñun ci seen innovation bi nga xamante ni moom ngeen def alors comme ni ma ko waxee sànq ci introduction bi Fab Lab Orange bi nekk Sénégal euh, bokk na si ñu leen taxaw ba nga xamante ni da ngeen mën a réaliser seen projet bi. am na nag benn compétition bu mag boo xamante ni maanaam challenge international fondation Orange euh, suñu champion yi war a euh, teewal Sénégal nag foofu noonu xëccoo ndam li ak seen yeneen i naataango yoo xamante ni ñoo ngi nekk partout dans le monde ci ci àdduna bi alors donc nag soxla nañ Sénégalais yëpp voté leen euh, man ni mu ko waxee sànq rek. 14 millions de votes sax mënoon nañ ko mën a am quoi waaw euh, je pense que buñ ci génnee gars yi nekk ci kii tout ça 10 millions de votes sax bu ñu ko amee baax na donc ñu ngi leen di ngeen voter leen euh, waxtu bi ñu leen bi ñuy bi déglu nii ci podcast bi mën ngeen am ci description podcast bi lien bi nga xamante ni moom mooy li permettre ngeen mën a voter euh, pour Notix ak seen application seen projet bi nga xamante ni moom moo tudd toolu kër ngeen voter leen pour que ñu représenter Sénégal ci compétition bu mag moom noonu alors. Euh, alors alors donc ñu dem euh, am na est-ce que lu ngeen ci bëgg sànni ci euh, compétition boobu directement El Bekri avant ñuy commencer. pardon pardon. am na loo leen bëgg sànni loo ban kàddu boo bëgg sànni ci compétition boobu noonu avant ñuy commencer exactement épisode bi. bon juste pour gagner voté mhm. projet bi ok mun valoriser valoriser macha allah ok dinañ voter incha allah massivement pour euh, toolu kër alors ñu dem directement donc suñu épisode tey bi maanaam toolu kër benn mbay mu yees la boo xamante ni dina mën a dina la permettre nga mën a bay ci sa biir kër voilà sans sans benn problème. alors. Euh, tey nag suñu xoolee ci àdduna bi yépp ñépp xam nañu bay dundee ni mu amee solo surtout nag ci jamono ji ñu nekk nii nga xamante ni euh, saa su nekk mbas mun na jóge fu ne frontières yi am ay jafe-jafe réew yi tëju seen biir euh, ba su boobaa sax da ngay gis ne bopp sa bopp day taxaw donc bay li nga xamante ni moom ngay dundee am na solo trop trop trop bokk na aussi je pense que sax ci objectif Nations Unies ci seen ODD yi ñuy wax noonu tu vois objectif développement durable pour xeex lépp li nga xamante ni mooy xiif ci àdduna bi donc loolu moo tax man bi ma gisee déjà projet bii rek man daf ma intéressé bu baax a baax ma ne fu ma jaat naa invité ñi ko def pour ñu ñëw toog waxtaan ak ñoom gën a yaatal alors avant nag ñu dugg ci waxtaan bi il faut que auditeurs yi xam aussi yéen ñeneen ñeen ngeen présenté wu alors euh, kan mooy Pape El Bekri Diédhiou est-ce que aussi mën nga ñu wax tuuti ci sa ci sa jaar-jaar électromécanicien laa wax électromécanicien laa def formation licence professionnelle en électromécanique système automatisé daanaka te am naa licence professionnelle dans ce domaine et technicien supérieur laa tamit mais mis à part ça la moo war a tey ma yegg si fii que ni on peut dire que autodidacte laa parce que li may def ñëpp maa ko jàng sama bopp. te actuellement maa ngi maa ngi jëm si mbirum design. Mhm. Euh, industrial engineering design euh, macha allah ça c'est cool c'est parfait. ça c'est cool c'est parfait euh, El waxal ci kaw nag xam naa ne koor gi na trop pour ñun ñëpp. yaa mais waxal ci kaw. Ah, mais yëkkatil baat bi ci kaw kaw xam naa ne koor gi métti na mais yëkkatil baat bi ci kaw amul problème. d'accord <laughs> alors Boubacar Santara est-ce que kan mooy Boubacar Santara est-ce que yow aussi mën nga ñu wax tuuti ci sa ci sa jaar jaar pour que auditeurs yi gën a xam euh, yooyu kan. waaw euh, El Hadj bon daanaka man moom sama parcours euh, wute na lool lool lool ak cursus ñëpp daanaka ñuy bokk ci groupe bi. ok sama jàng soriwul mën naa ne. j'ai mhm. arrêté à la si électronique donc euh, yàlla def ma am si encadrement bu baax ak euh, ay américain malgré que sama jàng soriwul mais jot naa am ay certification yoo xamante ne voilà maa ngi ko defee états euh, dans le domaine de système embarqué def naa développeur. en même temps. Mm-hmm. donc euh, électronique aussi. donc daanaka daal kooku mooy Boubacar Sow ñu dugg aussi si bon yàgg naa si domaine bi mais euh, en mille 2018 la commencé di mixer euh, sama profession ak entrepreneur ak entrepreneuriat. ok macha allah gisoon naa ne on peut pas avancer sans autant partager ce qu'on a avec les autres. du coup bokkoon na si samay samay tànk. ngir mu mën a li am parce que ñu bëri bokk nañ am nañ samay même euh, qualité. mais mhm. dañoo mhm. ok ok euh, loolu taxoon naa 2018 ma dugg si mbirum sama profession. Mhm. pour mu mën a démarquer quoi au moins. <laughs> allah c'est bien ça c'est cool c'est parfait c'est parfait bu am solo la je pense que. c'est bien ñun ñuy fësal genre exemple yu mel nii et c'est hyper important yaakaar naa ne am na solo trop te ñu bëri dinañ ci jàng tey euh, lu bëri quoi te comme li may faral di wax rek bu leen wax mu ko ne c'est pas possible it's possible bu fekkee ne bëgg nga ko rek c'est possible mën nga ko def loo bëgg def mën nga ko def ci juste nga am euh, voilà nga am ambition bi et tout ça et je pense que loolu gis nañ ko euh, ci yow Boubacar Santara te xam naa dañu gën a découvrir yu bëri gën a bëri ci yow incha allah kan mooy Pape Alioune Guissé ak euh, wax ñu tuuti sa jaar-jaar. Euh, Pape Alioune Guissé su <laughs> ma dama naan que électromécanicien la. ok de formation. Euh, dama termine sama licence rek après juste dama doon defee sama mémoire ci Fab Lab bi après bon du coup ci laa ubbeekoo pour mën a dugg ci domaine entrepreneuriat par par par chance. daa tombé ak gars allah quoi te parcours mais macha allah te. waay waay allah ah ça c'est bien c'est cool c'est parfait euh, c'est cool c'est parfait merci Pape Alioune Guissé alors. sànq ñoo ngi euh, wax nañu euh, ci introduction bi seen startup moo ngi tudd Notix tu vois je pense que ni mu ko épelé baax na ni mu ko waxee baax na noonu la. oui si ah, ok ah. ça marche alors sama premier laaj bi nga xamante ni euh, bëggoon naa ko laaj déjà euh, El Bakri. Euh, je pense que est-ce que desul. présentation. borom ngalax bi. ah François. ah non non je m'excuse. allez François. kan mooy François. ak est-ce que mën nga ñuy wax tuuti sa jaajaar jaar bi man la koor gi jàpp je pense maa ngi jégalu bu baax. non non man moom. mën naa ne bon man man tamit samay études soriwul noonu parce que bon après BFM bi laa arrêté sama donc euh, en même en même temps je suis je suis scout donc maa ngi bokk ci mouvement scout. donc sama euh, sama vie bi yëpp foofu laa foofu laa sama sama sama jeunesse. Euh, de sept ans ba ba ba ba léegi nii donc euh, foofu laa jàngee lu bëri tey ak ci laa commencé découvrir nouvelle technologie ak Mamadou Diallo donc nekk nañu cinq ans donc je pense que moom. tey moom moom ci ci ci ci ci numérique bi. Mhm. design mhm. même que programmation informatique donc mun man moom benn membre actif la ci Fab bi donc foofu mooy sama école euh, donc euh, à travers formation boobu noonu donc j'ai à faire beaucoup de projets demal sama bopp et et dire que voilà quoi en tant que scout un, vecteur de changement pas un scout qui sont voilà nekk tout le temps en nature voilà camping pourquoi pas changer loolu noonu indi ko ci technologie bi. macha allah donc c' m'a motivé mhm. def yenn yenn projet et aussi nekk ci domaine entrepreneuriat et voilà quoi partager de nouvelles choses avec mes autres ok ok ça marche franchement c' est hyper li nga wax yow tamit euh, maa ngi ziare waale euh, Mamadou Diallo bu baax a baax yaa ngi tudd léegi euh, nekk ni koo xamante ni mu ngi def aussi ay jéego yu mag ci écosystème bi macha allah alors je pense que c' est hyper important alors comme ni ma ko waxee léegi rek sànq ma ngi wax ci introduction. émission bi que seen startup moo ngi tudd Nautix alors euh, euh, est-ce que El mun nga ma wax seen daje naka la demee naka la startup bi juddoo ak aussi lan moo nekk seen ay objectif ci seen startup boobu noonu ñu naan Nautix. d'accord en fait euh, de base euh, Nautix euh, startup recherche ak développement la quoi. Mm-hmm. donc la ma waroon daje c'est que ñun xam nga ay passionnés lañ te dañuy dañuy bokk Fab Lab bi donc euh, ñooy ànd et tout donc ñu ku nekk si ñun loo xam ne yàlla may na ko ko te on est complémentaire raison pour de base nautique ça veut dire euh, aventurier de l'inconnu quoi. Mm-hmm. parce que ay temps yi doon liggéey hmm, pardon. mais aventurier de l'inconnu macha de l'inconnu voilà xam ah, mm-hmm. nga ñu ngi def gis-gis mooy ñu koy def bëriwuñu d'après information yi am. donc on s'aventure dans l'inconnu parce que dañuy gis ay problèmes jëm si répondre à travers ay solutions technologiques pour améliorer quotidien population bi di euh, dëkkuwaay bi continent bi quoi voilà donc Notix de base euh, au début dañu doon liggéey si benn projet projet CubeSat benn mini satellite ak euh, Maram donc foofu noonu moo loolu moo waral ñu xalaatoon benn truc assez spatial quoi. mais euh, après ñuy xool que ni tour bi ça coïncide ak ñun ñuy def parce que ça va être dans l'inconnu donc raison pour laquelle ñu conserver ko utiliser ko comme ça ñun ñëpp xam nga ñu bokk. ngeen benn startup. Euh, mhm. waaw demandoo demandoo évoluer suñu. ok ok par rapport ak suñu gis-gis. macha allah ça c'est cool c'est c'est parfait je pense que initiative yu am solo la auto entrepreneuriat euh, il n'est pas dit boo jàngee ba pare da war a dem liggéey ci entreprise et tout ça ku ci yàlla may aussi nga mun a am ay réflexions mun am ay idées. war nga ko mën a jëmmal à travers ay euh, startup yi ngeen euh, booloo surtout booloo bi nag dafa am solo bu baax a baax parce que comme li ñuy wax rek kenn mënul lu kenn mën ñaar ñoo ko dàq quoi donc euh, c'est hyper important affaire boobu nag macha allah alors léegi rek dañuy dugg ci seen projet bi nga xamante ni moom moo tax ñu invité leen tey maanaam toolu kër alors France alors François lan mooy toolu kër lan moo leen poussé ba ngeen créer lu ni mel ak aussi lan moo nekk njëriñam. Euh, voilà euh, bon lu ñu gën a mën a pousser tey euh, ba mën a def euh, projet bi dañoo seetlu ne Dakar sunu yaay dañ leen commencé defaral ay ay formation ci microjardinage donc ñu voilà ci microjardinage te anam buñ koy defee. Mhm. Euh, nekkul woon naa idée bu rafet la woon mais nekkul woon. allo allo oui. alors je pense que dafa dafa mel ni am na ñuy xëccoo nga lax sa ginnaaw de seen wax bi. <laughs> attends je me déplace bon mais euh, est-ce que kenn mën a répondre attends naa ma déplace. y a pas de souci alors El Bekri. Ah, El Bekri jëlal nga répondre ale en en en attendant mu réglé wala gars yi xëccoo nga lax foofu noonu quoi. ah ma joxe sama gis-gis kon. <laughs> bah oui euh. allez vas-y. lu ñu projet li ñu li ñu li ñu poussé projet toolu kër gi mooy que ni dañuy gis noonu que ni mhm. euh, par exemple da euh, am surpopulation en milieu urbain donc fii euh, en ville te il est pas évident ku nekk mun toog këram def agriculture foofu noonu raison pour laquelle ñu xalaat dara loo xamante dina permettre à tout un chacun mun toog këram def mu projet jardinage comme ni nga ko waxee si début émission bi rek bay dundee voilà ku nekk dina mun toog këram def ko macha allah alors loolu moo leen inspiré ba nga tax ngeen euh, euh, créer projet bi euh, ba nga xamante ni moom moo nekk nii tey alors bëggoon naa xam aussi cest à ñu cest à projet bi ci boppam lan lay def lan la lan la toolu kër di lay jëriñ exactement quoi. pardon mën nga kër exactement lan lay jëriñ quoi li ngeen xamante ni créé ngeen ko lan mooy nekk mm-hmm. njëriñam exactement ak ak aussi naka lay doxee quoi. voilà bon toolu kër de base. Mhm. Euh, ñun la moo si la moo la importé si toolu kër mooy technologie bu ñu utiliser parce que toolu kër bon euh, gis-gis yi bokkul kenn genre mën nga tase ni si mbedd par exemple mu ne la que micro jardinage kese mënul permettre def autosuffisance alimentaire par exemple. tu vois mais à travers à travers technologie bu ñu utiliser. mën mhm. na ko utiliser si ay ay ay surface yu mag. ay hectares exactement exactement donc loolu loolu moo importé o fait. loolu moo important moo gën a am importance. tamit la mu waroon ñu def ko mooy beaucoup plus mooy si wàllum euh, concours bi agrimaker pour won que ni gars à partir de de de rien on peut on peut beaucoup de choses fait donc ak technologie bi ñu utiliser si si dispositif bi ñu permettre ñu mun utiliser ko à grande échelle voir plus loin quoi que que dispositif bii nii. ok ok ok alors je vois que ni euh, mun nañoo dugg ci wàllum comme ni nga ko waxee ci wàllum technologie yi nga xamante ni euh, moom ngeen utiliser. Euh, xam naa ne ñu bari ñu ngi déglu actuellement ñoo ngi naan mais gars yi naka lañ def euh, ban technologie lañ def pour créer euh, toolu kër ak ban système la ñuy wax nii c'est quoi ban système la alors Boubacar est-ce que yow mën nga ñu expliquer yan technologie ngeen jëfandikoo pour defar dispositif bi nii mais aussi kenn ku ci nekk lan moo nekk liggéeyam lan moo nekk rôle am ci biir projet bi parce que gis naa ne ay spécialités yu bari ngeen boolante voilà designer électronicien opérateur machine ak développeur yan technologie ngeen utiliser pour créer euh, seen euh, dispositif bi nii. fii Elage euh, comme ni nga ko waxee rek fi ay talent yu voilà ñu fi am ay différents profils ñoo fi nekk. Mhm. léegi à partir de projet bii nii on s'est réparti les tâches pour ku nekk mën a apporter dara pour ñu mën a andi dara quoi au moins léegi bon du coup vu que man je en côté système embarqué. mooy maanaam électronique bi jëm si toolu kër bi ak euh, système bi jëm si biir pour maanaam mën a doxal système bi donc je suis plus de ce côté la léegi li ma jot a apporté si toolu kër euh, côté électronique c'est que pour mu nekk li ñuy wax si anglais rural like um, euh, pour que ça soit relié quoi. si si. Mm-hmm. parce seen biir quoi yëpp jokkaloo quoi. exactement parce que on a vu bon malgré que nit ñi fii ni problème bi ñu am mooy espace bu ñuy teg pour mën a intégrer seen tool toolu kër léegi bon système bi gën a li gën a important si système bi li ñuy wax euh, mesh network la mooy benn interconnexion bu permettre tool bi di mën a connecté wu si ñoom gateway maanaam di mën a ci seen si benn li ñuy wax gateway maanaam maanaam Gateway benn benn benn dispositif la bu ñu def si centre ville bi yem mooy recevoir maanaam euh, maanaam ñëpp ñi nga xam ne si ville bi am nañ euh, toolu ko si seen kër. ok dispositif bi day yónnee automatiquement information si Gateway bi Gateway bi yónnee ku nekk si sa application. de ce fait il y aura pas des de par exemple am ñu bëri ñoo xam te ils ont des problèmes euh, d'accessibilité d'accessibilité internet. donc bi exactement. foofu lay andi euh, benn benn benn benn benn solution parce que GTP moom li may doxee mooy radio fréquence donc pas besoin de connexion internet donc mën a yónnee information et tout information yëpp à travers gateway lay jógee si kër yi donc même nit ki bu amul internet ci këram il pourra utiliser le dispositif chez lui donc loolu benn benn benn benn challenge gu mag la boo xamante ne jot nañ ko réussir alhamdulilah léegi ci côté Euh, électronique aussi donc jot nañ mettre en place euh, acteurs yu bëri yi nga xam ne dina mën a jàppale nit ki pour mu mën am information si tool bi ak fu mu munti nii capteurs yi bon on peut dire que am na ay capteurs de température humidité ambiante bi su fekkee day yooyu comme ça nit ki mun a xam ba xam plante bi mu ngi en bon état environnemental ou tamit euh, bon ay capteurs d'humidité sol ñu permettre euh, voilà pour xool ak wu sol bi ak euh, besoin wu fleur bi pour mën fournir après maanaam bu fekkee dafa soxla ndox waaw donc euh, voilà il aussi des capteurs de lumière donc def nañ ci des ensembles de capteurs yoo xamante ne permettront à l'utilisateur de vraiment être à l'aise là où il est mën a voilà yenn information yu bëri donc euh, voilà loolu je pense bu mag la boo xam ne jot nañ ko andi si. jot ci projet bi. alors alors bàyyi bàyyi si côté application am. <laughs> parce que ñu ko c'est-à-dire man su ma comprendre bu su comprendre bu baax su fekkee xam naa bu baax li nga expliqué c'est-à-dire toolu kër benn projet la boo xamante ni dañ ko mettre sur place pour permettre nit ki. mu am benn micro jardin bu ndaw ci këram wala fu mu mun mënti nekk mais ngeen accompagner ko ay technologie yoo xamante ni day tax ngeen mun a saytu tool boobu noonu maanaam plant yoonam parce que bu ñu waxee tool ay plante ñoo ci nekk ay gàncax ñooy nekk ci biir. d'accord alors léegi da ngeen fa def nag ci biir euh, tool bi mën naa wax tool bu tool bu ndaw la wala nu mu mënti doon da ngeen fa def ay ay ay ay xarala yu bees yoo xamante ni day tax ki nga xamante ni moom moom tool bi mun a xam tool bi ci ban état la nekk. est-ce que soxla na ndox est-ce que lumière bi bëri na est-ce que est que est-ce que voilà mu xam euh, information yu bëri ci tool bi alors information yooyu nag da koy envoyer euh, c'est-à-dire euh, capteurs yi dañuy envoyer seen information bi ci benn gateway boo xamante ni moo ngi nekk quelque part bii biir dëkk bi d'accord alors loolu mooy wane ne kon du soxla connexion internet parce que par ay fréquences rajo la ñuy lay connecté woo ak gateway bi. alors Getaway boobu aussi dina mën a communiquer ak benn application boo xamante ni moom ngeen di jox borom tool bi maanaam borom jardin bi nekk këram toog ci salon wala nekk bureau sax peut-être tu mu mun a xam euh, ban information moo moo ndax est-ce que su sol bi tooy na ci jardin bi est-ce que manqué na lumière et cetera et cetera n'est-ce pas c'est am na am na si benn point moo bëgg xaw a ñëw tuuti. Parce que, comme Nika Bekri ce qui importe, c'est la technologie. Et là, vu que nous essayons d'apporter des solutions à un problème bien précis, malgré que nous nous fait à grande échelle, on l'a fait avec les du buñ ko gisé dañu nan li dafa ndaw nan la mëna ñëwé voilà yenn problème si c'est-à-dire c'est-à-dire question bi deug sax après dina ñëw après ci kanam tuti parce que fokk ngeen wax ñu yaatal bi nu muy démé quoi tu vois parce que loolu moo gën a am importance comme ni ngeen ko waxee léegi technologie bi moo gën a am solo sax euh, loolu li ngeen def je pense que li ñuy ñi ñuy gis prototype la tu vois mais technologie bi war nañ ko mun a adapté ci yeneen affaire mais question boobu dinaa si ñëw léegi euh, bu leen may spoiler bu leen may spoiler <laughs> <laughs> maa ñëw ci question bi <laughs> no <laughs> alors euh, alors alors alors El Bekri est-ce que am na loo bëgg dolli ci loolu noonu parce que xam naa ne aussi am na application boo xamante ni defar ngeen ko boo xamante ni moom la borom tool bi di mën a utiliser pour am information yépp quoi El Bekri. bon juste lu si mën doole mooy lu mu waxoon sànq rek. Mm-hmm. mooy que ni euh, dispositif bi nii c'est juste un prototype quoi. Mm-hmm. mais c'est fonctionnel. mais ñun la mënu ci gën a intéressé mooy que on peut on peut déployer déployer ñëpp mun si bénéficier woo ñëpp te euh, par rapport à application bi mooy dispositif bi da am ay informations relatives mooy à l'humidité humidité sol température bi euh, lumière bi voilà lépp loo xamante ni plat dina ko soxla pour mun euh, màgg dans les meilleures conditions qui doit di nga ko di nga ko mun gis à travers application ok ok ok alors ay je am na développeur bu nekk fii Pape Alioune alors Pape Alioune yow lan nga ci mën a yokk ci technologie yi nga xamante ni utiliser ngeen ko pour mettre sur place système bii nii. waaw sëñ mhm. euh, rek que développeur bi entre guillemets c'est juste pour projet bi. ok ok. waaw léegi bon je suis euh, électromécanicien de formation. ok bëgg naa jàng lu mel ni développement lu mel ni xam développement web lu mel ni électronique. ok ak gars yi bon. Mhm. projet bi daf ma permettre à ce que man mën a jàng lu bëri ci loolu parti boobu noonu. ok ok monter en compétence quoi. voilà raison de plus ñoom ñu jox ma parti boobu noonu. Mhm. te macha allah code yi lépp bon. Mhm. vu que amoon naa ci tuuti nation ma ma ñëw fii gën ko exploiter la ok. ok ça c'est cool léegi léegi léegi léegi bon partie boobu daf ñu permettre à ce que ñun ñu jël ay code bon di utiliser bon genre liñ naan LoRa LoRa moom lañ doon liggéeyee te vu dañ ko waroon programmer te partie programmation bi maa ko géré donc jàngal na ma ci lu bëri te micro bi mu ngi baax est waaw dafay xaw a dem ak ñëw nag des fois quoi. voilà maa ngi doon wax que ni bon ñu utiliser LoRa te LoRa dafay laaj. Euh, programmation. ok partie programmation boobu noonu. Mhm. man jàng naa ci lu bari. ok ok léegi permettre na mi tamit ñu créer benn interface web boo xamante ni nii dañuy jël données di ko envoyer foofu noonu. voilà léegi parce que dañoo am ay capteurs yoo xam ne ñu ngi ci biir tool bi yoo xamante ni nii day day day saytu gàncax gi mooy suuf gi ak euh, euh, garab yi lépp li nga xamante ni soxla nañ ko li di mel ni humidité température lumière loolu noonu yëpp c'est des capteurs yoo xamante ni loolu la ñu implanté ci biir tool bi à ce que ñoom ñu ñuy renvoyé at information yooyu noonu ci interface bi ñu créé. alors dafa am benn bruit de fond bu mag bu nekk ci ginnaaw xam naa sûrement micro bi la wala espace bi nga nekk sûrement. allo mu ngi baax. waaw waaw ñu lay dégg mën nga wax waaw. voilà moo maa doon wax que ni yi nga xamante ni moom lañ inséré ci ci biir tool bi. Mhm. yooyu ñoo ñuy envoyé information yi via bi nga xamante ni créé nañ ko mooy application bi nga xamante ni moom mooy li ñuy recevoir les données yi. te loolu noonu yëpp liggéey la boo xamante ni nii bon gars yi permettre nañ ma ma gën cee gën ci gën cee gën ci dox. mooy mhm. maanaam développeur boobu ñu koy woowee entre waay waay waay mais c'est bien quand macha allah doonu ma ko sax malgré mais xam naa ci am naa ci notion yooyu nga xamante ni jàngale naa ko ci tey. ok mais c'est ça parce que c'est ça la complémentarité maanaam mottaliwante alors c'est-à-dire bu ngeen nekkee équipe aussi ah, ku ci nekk da ngay partager sa xam-xam ak ñeneen yi e je pense que loolu am na solo trop trop trop trop e je pense que. comme ni ko comme ni ko gars bi defee cest à comme ni ma koy waxee chaque fois euh, fi nga xamante ni foofu lañ leen doon former wala fi nga xamante ni foofu nga doon defee seen projet bi mu nekk Fab Lab bi et tout et man je pense que loolu moo fa am quoi partage de connaissance bu dëgg moo fa am ku fa intégré aussi da ngay gis ne da ngay yokk ci wàllu xam-xam bu baax a baax alors comme def naa ko temps yee passé ak waa Sonatel naa ne aussi ambiance bi ñu nekkee j'étais même venu si seen euh, cérémonie bi tu vois et que ne am na ambiance boo xamante ni am na nit am nañ ko tu vois et partage bi day gën a day gën a day gën a day gën a am solo c'est-à-dire dañuy jàngalante seen biir sax quoi tu je pense que loolu am na solo bu baax a baax loolu gars yi open source laa leen di woowee parce que voilà. ñoom déjà logiciel yi ñuy utiliser open source la. waaw ñoom déjà en personne ils sont open source. <laughs> ça c'est extraordinaire. waaw bu ñëwee ci ñoom rek voilà da ngay frité ambiance bi comme ni nga ko waxee rek. moom waaw waaw partage bi tamit macha allah. ça c'est sûr ça c'est sûr. alors François yow aussi man gis naa la ci vidéo yi yaa ngi nekk ci euh, voilà dagg euh, defar prototype bi ba ñuy defar prototype bi je t'ai vu en action quoi gis naa la yaa ngi nekk di actionné foofu alors lan nga ñu mën wax ci parti technique bi yow tamit euh, François. Ah, ok bon yéen a may dégg bu baax. waaw fii c'est bon ñu lay dégg bu baax. ok bon partie technique bi li ma ci mën a yokk mooy avantage yu distance bi par mhm. exemple su di kër mën na connecté ba huit kilomètres. Mhm. donc euh, mën nañ am accès si toolu kër ba huit kilomètres loolu loolu mën naa ko ci vu que gars yi ils voilà wax nañ lépp presque donc loolu la si mën a yokk ak tamit côté surtout lu ma commencé woon sànq mooy aspect utilité bi nan est na toolu kër est ce que dina utile dina utile ak euh, par rapport ak ak communauté bi euh, je vais commencé woon naa di wax ci distance bi par exemple suñu yaay nga xamante ne ñoom léegi boo seetloo chaque commune. maire yi dañuy fay def yenn espace pour aménager ko def ay jardin hmm. pépinière donc day am dañuy day am ay problème dañuy rencontré ay problème ñoom dañuy duñu mën a gérer seen i kër par exemple togg bi ménage yi en même temps dem di ko gérer donc toolu kër bu fa amee dina mën a permettre nga xam ne chaque bu jot bu defee seen liggéey ba pare ba noppaleku chaque ngoon la ñuy dem ñu vérifier xool ndax ndax euh, liggéey bi jaar na yoon ou pas donc après ñu ñibbi avantage boobu noonu donc am nañ ko ba pare lu si gën a euh, neex mooy ñoom si seen kër yi mën nañu am foofu toolu kër via seen application et sa connexion internet Aboubacar wax na ko. dinañ mën a it dinañ mën a xam données ak euh, mën a xam tamit seen avancement garab ak seen niveau de réservoir d'eau du bi ko au moins chaque trois mois dinañ mën a am ay ay fruits euh, légumes ay ay légumes yu frais répondre tey au des objectifs développement durable yooyu noonu euh, combat wu ONU boobu ONU combat bu ñu commencé. Mhm. Euh, bu ñu tàmbalee ok ok. alors je pense que am na solo trop te je pense que foofu sax euh, euh, lay jaaree dugg ci sama sama beneen question bi parce que euh, franchement maa ngi leen di féliciter déjà bu baax a baax a baax a baax ci li nga xamante ni yéen a koy def maanaam projet bi nga xamante ni initié ngeen ko mu nekk solution bu am am solo mën a dimbale nag population bi bu baax a baax a baax baax alors ci dimbale population yooyu nag sax ci lay laajte est-ce que par exemple El Bekri est-ce que tey yéen xalaat. Euh, ci naka ngeen war a mun a déployer produit bi nii euh, ba nga xamante ni Sénégal yëpp dinañ ci mun a jot euh, voilà ba nga xamante nii ñëpp dinañ ci mun a jot mun ko jëriñoo aussi quoi. commençant par man mi nga xamante ni bëgg naa ci benn quoi bëgg naa def sama benn toolu kër bu yem ci Sénégal ci sama kër wala genre demee noonu wala ci sama jardin à côté bëgg am métrique yi bëgg am information yi tout ça ndax ngeen xalaatee déployer affaire boobu noonu ci Sénégal yëpp duggaguñ nag ci àll bi àll bi dinañ ci dugg léegi ci kanam te dinaa leen laaj question waaw dëgg la daanaka sax euh, projet bi balaa ñoo ko présenté au grand public. jot nañ ko déployé ba pare. ok euh, Abdou Touré je pense xam nga ko. xam naa ko waaw mhm. bon jot na moo nekk suñu premier testeur jot na ko testé si si terrasse verte bi te da koy utiliser foofu noonu pour euh, bay dundee bi léegi nag bon comme ni nga ko waxee sànq rek may ñëwaat si si chose technologie moo importé. maanaam te jii déploie pour déploiement je pense que ça sera facile sama gis-gis mooy que ni composants électroniques yi rek moom ni ñuy déployer mais sur une surface peut-être euh, bu gën a ngànne ça dépend ça dépend fan fan nañ ko war a déployer par exemple si hectare wala voilà su euh, technologie bi rek la ñuy déployer indi ko sur place application bi c'est c'est disponible. Mhm. voilà. Okay. Ensuite, ce automatique. Parce que tu Après, man... dispos... ah, mhm. vas-y, vas-y, ah, Après, juste composant, yi, ñu ngi soxla rek arrosoir yi ak pompe yi affaire ngay monter si ay ay ay récipient ay water tank affaire yooyu noonu après normalement. c'est un truc vraiment simple. simple. ok simple c'est simple. parce que li tax ma poser question ba parce que am na ñu ma xam tey Sénégal euh, ñu ngi commencé euh, ci seen biir kër yi. di ko aménage de telle sorte que ñu ngi def am foofu ay jardin yu ndaw tu vois di mën a euh, créer ay euh, voilà euh, di jëmbat ay ay ay légumes yu sewul di ko nank nank quoi tu vois du nekk lu rëy nag quoi tu vois euh, xam naa ci ñu nekk Saint-Louis et tout ça euh, ñu ngi def fi demee noonu te je pense que tey initiative yu mel ni comme yi ngeen am ni bu ñëwee euh, war ngeen mën a am ay modèles yoo xamante ni dina mën dem ci population bi ci ñooñ noonu dimbale leen aider leen bañ mën a def dispositif yooyu seen kër yi et je pense que buñ voilà man culture boobu amoon na bu yàgg ah cest suñ maam yi des fois da gis seen ëttuwàllaa yi leen ko woowee seen ginnaaw kër yi dañ am benn ay jardin yu ndaw tu vois def ay mm. jaxatoo affaire jaxatoo doo def jarul dem ci marché bi. tu vois ngay eh, tourné dagg ñeenti jaxatu def def def si Chine ah. gis suñu producteur bi ay persil def ay tomates. voilà amul garab fii. amul carotte. amul carotte de non man man carotte laa bëgg nag yiw man carotte de non man carotte laa bëgg nag. <laughs> gis nga gars yi ñëwee fii dañuy naan ay prix persil bi yokk na affaire yooyu noonu tu vois. bëri na bëri na persil foofu instant yi mu ngi mu ngi jur bu baax objectif bi mooy fexe ba nit ñi di utiliser techno te seen li ngeen defal technologie bi ak dispositif bi pour que tey voilà euh, moo xam nga nekk Dakar moo xam nga nekk seen louis tey boo amee sa kër war nga mën am benn terrasse à bu ndaw. Euh, mm-hmm. def fa say affaire boo buggee togg benn affaire wala yenn saay xale yi bu ñu yeewoo nga daggal leen ay ñeenti carotte yenn juróomi carotte tu vois ñu lekk vitamine yi nekk seen yaram yi tu vois alors je ah, pense que euh, culture la rek bu ñu demee ba am culture boobu war na mën a am solo bu baax a baax alors damay ñëw ci benn question bu am solo bu gën a yaatu nag toujours sax ci ba léegi ci wàllum dimbale population bi est-ce que tey jii nii seen solution bi mën ngeen ko yóbbu ci àll bi adapté ko foofu ba nga xamante ni euh, dina mën a dimbale suñ papa yi ak suñ nijaay yi nga xamante ni ñoo ngi nekk foofu noonu ci àll bi ci seen tool yi parce que man bu mag laa te naa ni sama mbokk yi soxla nañ ko ko ça c'est hmm, être ma kii euh, Mamadou am na ko yëkkati loxoom. ah en fait. dama sa question précédente bi. am na ko ma laa am na ku benn question bu am solo. mu ne ma Boubacar est-ce que bant bi ngeen defar nii genre design bois bi est-ce que c'est ce que vous allez déployer dans les maisons. Ah, donc am naa loo xam jaara leeralal tuuti. parce que exactement la pour le moment léegi une fois ñu naat ko réadapté pour def ko genre euh, en chaîne en production en chaîne donc dans ce cas dinañ dinañ utiliser bon li wax euh, plastique quoi dinañ utiliser li jouer waale un peu si. problème plastique yi au Sénégal parce que les plastiques ici au Sénégal sont recyclables donc du coup dinañ mën a réutiliser plastique yi nga xam ne voilà déchet la euh, ñu li nga xam ne c'est c'est réutilisable ñu defaraat ko de sorte que dinañ mën a réadapter euh, toolu kër sur des bases en plastique yoo xamante ni voilà ce serait durable ce serait voilà euh, dina xaw a dëgër aussi quoi pour utilisation bi tout. ok ok. bon bon man lu ci mën a Euh, surtout côté surtout par rapport ak question bu sànq bi mhm. mooy que ni boo seetloo bon Afrique mhm. gars yi ragal adopter technologie bi quoi loolu moom ñun ñëpp xam nañ donc dañuy ragal dañuy ragal adopter ko par exemple on a def nañu ay projets yu bëri comme ay poubelles intelligentes et d'autres projets mais boo ko defee day naan lii xarala yii ni bees yi est-ce que duñu duñu indil euh, ay gàllankoor wala tamit du yokk dépense donc je pense que buñu bu ñu bu ñu commencé bu ñu commencé ak genre projet euh, yi comme toolu kër ak yeneen yeneen initiative am na ne ñoom dañ si gis njëriñ bu baax ak efficacité bi dina dina def ko tey sunu suñu dëkk gars yi dinañ gën a mën a am euh, fit di di di jël di di nangu commencé nangu adopte euh, xarala yu bees yi ni si seen si seen dund te je pense que ça va mm-hmm. dinañu jàppale bu bëri te loolu moo tax te dina tax mm-hmm. dina mën a avancer loo dëkk bi mu jëm kanam ça ça c'est sûr. parce que parce que euh, man li ma xalaat ci li ma xalaat ci loolu aussi c'est parce que alors tey buñ la bay buñ la mbay rek am na fu ñëpp di seen xel yi fi muy xalaat quoi d'accord euh, day xalaat àll bi day xalaat fépp quoi tu vois certes dans les villes ci suñ dëkk yi réew ci dëkku taax yi soxla nañ bay tu vois comme li ma wax nii léegi mooy am sa jardin bu ndaw ci biti mais suñ ko mënee am aussi ci àll bi c'est hyper important tu léegi nag àll bi nag ñoom am nañ seen façon de penser je pense que am na ku ko wax léegi tu vois am nañ seen idéologie ak na nu ñuy xalaatee am na nu ñuy euh, voilà nu ñuy gisee affaire yu bëri léegi nag ñun ñi nga xamante ni ñooy defar te ñoo nekk ci technologie bi di defar ay mbir yu bees il faut que ñu wàcc wàccee niveau bi des fois loolu lay wax quoi dañuy wàccee niveau bi ba tolloog ñoom expliquer leen li nga xamante ni moom lañ defar. tu vois et que loolu exercice bu am solo la c'est-à-dire defar ba pare mais nga wàcce niveau bi xam ban communication ngay def ak ñoom ñi nga xamante ni dañ koy soxla bu baax a baax mun leen ko expliquer pour que ñoom ñu mun ko adopter mais aussi nga wal leen njëriñ bi tu nga wal leen njëriñ bu baax ba nga xamante ni euh, dañ koy mën a dañ koy mën a dañ parce que buñ toogee par exemple ci àll bi rek dégg ñu ne waaw Dakar am na ñu fa tu vois da leen sonal leen donc ñun aussi euh, suñ rôle mooy fexe jege leen ba nga xamante ni dinañ mën a waxtaan ñoom wala njëriñ bi et je pense que suñ gisee njëriñ bi après euh, adaptation bi dina dina gën a yomb li ci des nag mooy affaire euh, financement la xaalis pour mun a voilà def ko à grande échelle et je pense que loolu war na mën a ñëw après incha allah alors bu fekkee ne am na keneen ku ci bëgg am leneen lu mu ci wax aussi ci volet boobu noonu ci point boobu noonu alors mun ko ko ci wax El Bekri wala Pape Alioune ak yu demee noonu élage euh, maa ngi tudd sax bon en fait. Mhm. ñun ñoo ngi doon essayer di bon xam nga plus souvent ñun dañuy def recherche et développement. Mhm. bon dañuy dox parfois di gis ay problème comme supposons projet toolu kër bi ñu ngi ciy ñu ngi ciy liggéey nii nii nañ ba gis ñu mel ni jardinier xam nga boo xoolee Dakar ñoo xam ne dañuy jaay fleur affaire yooyu. ñu gis ci benn waay ku ñu naan Saliou. ñu toog waxtaan ak moom expliquer ko projet bi léegi moom boo xoolee retour am moom xaarul woon sax lu mel ni génnee Sénégal te te te en plus bu ñu déggee moom tamit moom fi mu doon waxee mooy que ni côté village yi ñoom sonn bi ñu sonnoon ci maanaam mbay gi war nañ mën a am loo xamante ni tey ji war nañ mën a toog affaire yi di seen côté ñoom ñu dem doxi ci yeneen occupation il n'est pas dit tamit dañuy bàyyi carrément carrément bay bi mm-hmm, mm-hmm. mais mhm. boo xoolee ñoom fi ñuy waxee day mel ni comme si que ñoom am na benn coono boo xam ne ñu ngi koy daj ci affaire te suñu demee ba nga xamante ni lii war nañ ko mën déployer ba mu mën a laal leen ñoom ñooñu noonu comme tey jii dañ dañ leen benn coono te te te moom bu ñuy waxtaan ak moom dañuy gis ni carrément ñoom soxla nañ lii technologie bi ñu ko jëmee ba déployer ko foofu day mel ni soxla nañ ko lool. macha allah ci kaw loolu noonu nag ñu ngi ciy dox moom ñu ngi xool ay retour dem nañ ñu nga xamante ni sax moom li nga xam ne moom la espace am bëgg nañ fa dressé nañ fa benn bon ba bëriwul nag mais benn boo xamante ni genre comme toolu kër lañ fay def mais du doon ci bu ñu teg ci ay bois wala. voilà wala day mi nekk benn expérimentation lay doon quoi ok. voilà ñu am ko foofu noonu après teg fa suñuy capteur boîtier bi nga xamante ni moom tamit application bi dafa yor à temps réel muy xam li nga xam ne mu ngi koy mu ngi koy mu ngi dund ci biir suuf si. exactement c'est ko daf ko daf ko utile quoi loolu noonu ci moom te gis na ci gis na ci avancement bu c'est sûr ça c'est alors li may wax li may waxaat ko rek mooy bu leen xaar kenn. c'est vrai que la vie est difficile dëkk bi métti na lépp métti na mais bu leen xaar kenn pour wane ne li ngeen defar am na njëriñ parce que je me dis ne boo defaree benn mbir bu am njëriñ tu vois si suñ dëkk yi ñu nekk nii c'est très rare des fois nga gis tu vois nit ku jógee fa la ñëw épaulé la voilà def ci liñ ci war a def lépp tu comme ni ñu koy gisee ci yenn pays euh, États-Unis ak tout ça di nga gis benn borom xaalis bu gis ne kii avenir la kii lim def ni am na solo mu ñëw jàppale na alors suñ dëkk yi c'est mais donc moo tax ñun ñoo war a def beaucoup plus d'effort tu vois jéem a voilà euh, yokk effort yi nañ jéem a bàyyi lépp nekk ci affaire boobu noonu tu euh, fexe ba wan nit ñi ne leen li ma defar am na njëriñ am na solo. tu vois nga teg ko ci euh, voilà foo xam ne comme dañuy waxee ne olof dafay wax naan euh, nu mu koy waxte sa jaay laalo fi ñuy tayee cere quoi d'accord xaw ma na xam ngeen wolof boobu jaay laalo fi ñuy tayee cere parce boo yoree sa laalo dem di ko jaay ci restaurant bi nga xam ne ay hamburger la ñu lekk ah, c'est compliqué voilà tu vois alors da ngay ba fi gars yi nga xam ne foofu la ñuy tayee cere nga indi fa sa laalo comme nga gars yi dinañ ko jënd quoi alors am leen esprit boobu et je pense que sa va aller allah te bu ngeen gagné compétition bi ça sera plus neex incha allah alors. Ah. léegi nag ñu yegg si pratiquement ci fin épisode bi parce que dañuy bañ mu tirer en longueur tu vois mais euh, bëggoon naa aussi ngeen wax ñu euh, ci jafe-jafe yi nga xamante ni jot ngeen ko dund euh, bi ngeen di créer seen projet bi nii ak produit bi jafe-jafe yi fan la gën a nekkee ci matériel bi la ci développement yi la wala ci voilà fan jafe-jafe bi nekk exactement yan jafe-jafe ngeen rencontré a aussi des anecdotes ngeen mën ko partager ak auditeurs yi aussi quoi. Mhm. kan moo bëgg wax ci anecdote yi ak jafe-jafe yi. <laughs> François ah. Boubacar oh. wala El Bekri. <laughs> bon naa bi bu njëkk bi boobu benn wax nañ ko mooy sànq. Uh-huh. côté tournage bi. ok ñu tourné samedi bi lundi moo nekkoon euh, deadline bi ñu tourné ko samedi dimanche. ñu xëy booy woo ma ne ma affaire yi dafa supprimer wu après ñu dimanche ñu ñu xëy fablab dem liggéeyaat ba presque nekk nañ fa ba dix neuf heures ah. ok vingt heures vingt une ah moom je pense que euh, côté côté soft bi. Mm-hmm. moo gënoon moo gënoon moo gënoon moo gënoon metti parce que parce que dañuy dañuy boole euh, capteurs yi pour envoyer ko via via via ay serveurs affaire yooyu donc côté soft bi xawoon na metti avant que ñuy am données rek c'était c'était des fois données day ñëw mais bu bu buy affiché données yi doo am données normales euh, ba pare day yéex en fait donc c'était c'était c'était un peu compliqué mais après bon finalement ba ñu amee solution affaire bi c'était pas c'était pas métti noonu quoi mais moo tax ba ñu amee solution bi ouf gars yi dañoo soulagé wu mais mais période boobu moom dañ doon dañoo dañoo doon douter sax ne affaire bi nii suñ defee lu dox lu tax lu dox. ok mu metti tu vois mais c'était c'était c'était c'était des moments tellement difficiles. ok surtout côté côté côté aussi côté euh, xar bi mooy côté assemblage bu boîte bi euh, vu que genre c'est boo xoolee bu baax assemblage sans vis lañ ko dañ ko defee da ngay ñëw rek assembler amul vis amul da waaye assemblage sans vis mais pour def assemblage bi c'était un problème il faut que ñu ajuster waat côté yi mu mën a dugg carrément mu ay encoche encoche yi mën a jàpp. mais mais mais yan yan matériel ngeen utiliser pour dagg bu ay defar a yu demee noonu def design yi ba mu rafet et tout ça. Euh, voilà ma matériel yu Fab Lab la ñuy utiliser boo seetloo Fab bi ñoom dañuy am ay mach ay machines yu ñuy utiliser si seen locaux yi par exemple am na ay machines yu wax ay fraiseuses numériques machine machine yuy dagg yuy dagg bois dañuy dagg bant dañuy dagg weñ aluminium ak ak am nañ tamit machine yoo xam te dañuy euh, laser la day gravé day dagg tamit en même temps am nañ fa ay imprimante 3D ak euh, euh, ak benn benn brodeuse numérique donc machine yooyu noonu nekk ci Fab Lab bi moom la ñu utiliser pour mën a réaliser pour mën a réaliser prototype bi. ok ok donc CNC CNC commande numérique par ordinateur. par ordinateur c'est-à-dire mhm. da nga koy da nga koy commandé ak sa machine donc nga defar design bi définir face yi. après moom machine bi moom mooy def découpe bi par benn langage de programmation J code après moom mu def mu def mu def découpe bi. macha allah si si ça c'est cool ça ça c'est cool ça macha bi ñoom dañ lay aider que au lieu que Diallo moom mu koy def moom da lay former te sotti ko yow yow yaay def design bi nga xamante ne tey boo toogee wala nga am nga am machine bi sa kër di nga ko mën a defaral di nga ko mën a defaral di nga ko mën a defaral sa bopp. ça c'est cool c'est parfait ça c'est cool alors euh, lan ngeen ñu mën a waxaat encore ci jafe-jafe yi wala euh, ci côté yeneen yeneen yeneen aspect yi quoi El bon man moom xam nga jafe-jafe yi peut-être euh, brain brainstorming quoi. ok xam nga. Mm-hmm. xam nga on est passé de l'état d'idée à de de de physique. Mm-hmm. donc peut-être xawoon nañ bon man indirectement xawoon naa sonn quoi xam nga parce que conception logo. en temps record xam nga def rendu def euh, conception 3D bi ak dimensionnement yi peut-être que en un temps record c'est c'est épuisant quoi bon peut-être foofu laa ko mën wax mais bon góorgóorlu leen ba am nu ñu soxla ba am lu ñu bëgg ba mun postuler voilà ba waa ñu sélectionné ñu à l'international quoi. ok ok macha allah. voilà alors je pense que je pense que loolu aussi am na solo Aboubacar Pape Alioune am na lu ñu ci. dolli euh, daanaka gars yi wax nañ lépp. Mm-hmm. mais juste euh, pour rebondir euh, ci benn côté. c'est que genre c'est vrai que comme ni ko Bekri waxee ñun avant avant ñu entamer projet. dañuy def li ñuy wax brainstorming donc xam possibilité ak faisabilité bu projet bi ak stratégie nga xam ne war nañ ko adapté ak pourquoi ñu war ko adapté donc loolu yëpp bu liggéey bu yomb je vais dire mais bon une fois ñu jàll si loolu bon on dik projet bi yomb na dañ ke doon mu daano <laughs> ni ko Franck waxaatee encore. ñu ngi duggaat ci mais on dirait qu'il y a des djinns dedans quoi. <laughs> voilà partie ah uh-huh. euh, bi tamit bon le design n'a pas été facile parce que boo xoolee ñun avant ñuy ñuy defar carte électronique bi dañuy dañuy def lu ñuy prototype si si breadboard donc prototype bi dox. après ñu design suñu propre carte PCB après ñu defar ko de ce fait on a on a un produit boo xamante ni voilà quoi ñu bëri bu ñu ko gisee ñu naan non ça c'est pas vrai c'est pas fait au Sénégal quoi. waay mm, si si te yéen a ko designé du début à la fin euh, imprimé euh, pièce par pièce et tout ça assemblé ko quoi. assemblé exactement différents composants et tout mais comme ni ko gars yi waxee rek c'est que am projet yomb na mais le finir c'est ça le vrai challenge quoi. le finir c'est ça le vrai Ouais, ça c'est sûr. Niam. Ça c'est sûr. Ah oui, ah oui, ah oui, ah vous êtes des jambar quoi, vous êtes des lions, ça mm. wax lu wax lu suñu slogan bi. C'est quoi lan mooy slogan ah, bi? Ah <laughs> mooy mooy wax yokku jëf. ah wàññi wax yokku jëf ah mais mais mais ah. extraordinaire ça mais dañ ko war a bind ci suuf bind leen ko ci suuf man ni mu nekkee wolof ni mu nekkee wolof noonu sax daf ma daf ma neex trop sax quoi. ah. Bah <laughs> c'est sûr. <laughs> alors pa parce que. Ouais, ça c'est sûr bëri bëri ñi nga xam ne ils ont des projets ambitieux voilà des trucs qui sont vraiment extraordinaires mais une fois qu'ils voient un peu quelques difficultés ils savent pas qui c'est projet exceptionnel quoi. waaye ouais, amoon na am na benn surprise boo xamante ni nag waroon naa ko war naa ko ci biir maanaam euh, jokkoo ak euh, Mamadou Diallo nekk Fab Lab Orange bu Sénégal euh, nekk benn acteur bu mag aussi ci écosystème bi taxawu gars yi bu baax a baax ci bépp projet bu ñuy wax te mu bu ñuy def te mu laal ci affaire wu domotique affaire voilà impression 3D et tout ça franchement mu ngi def benn travail bu am solo alors lan ngeen xalaat. lan ngeen xalaat ci Mamadou Diallo boobu noonu ak liggéeyam bi muy def ak ni mu leen jàppalee. Hmm, Diallo Diallo Diallo bu ñuy waxee fii bu suba du du ñu mën jeexal du ñu wax si moom. Ah parce mu ah lu am solo moom. waay waay waay. franchement solo moom mu ñu booster mu ñu permettre par exemple ñu mun euh, vivre suñu passion quoi vivre suñu passion. voilà à travers li muy def mu ngi ñu motiver daal mu ngi ñu motiver mu ngi ñu woon yoon gi te c'est un exemple à suivre. macha allah non non il est il est exceptionnel. Euh, moom moom moom aussi dafa nekk koo xamante ne genre bu la gisee même même voilà même si les gens se disent que voilà yow doo avancé li nga def amul solo et tout moom mooy nekk si sa côté pour booster la de fait que yow da ngay gëm da mujjee gëm sa bopp sax même boo ko def woon quoi. loolu moom si si quelqu'un d'extraordinaire dans ce côté-là. macha allah bu mag bi. <laughs> ah Diallo Diallo muy open source bu mag bi ah? El, el, el, el táctico, el, el táctico, el táctico. Ouais, c'est sûr. El, táctico nekk waaye Fab la. bu sélection nationale bi. ah ouais ouais mais comme booy comme booy booy lu ñu wax rek. Diallo moom c'est c'est mën nañ ne c'est un grand frère franchement moom moom day day sacrifier temps eh, chaque jour Fab là-bas. liggéey et surtout su côté projet bi boo amee boo amee yenn blocage yi comme Ababacar lu mu wax dina la motiver de telle sorte que tey projet bi dina mën a aboutir mu wax la tamit carrément dina jox day ay day joxe bon conseil am tamit fa nga mën a tànk exemple wala yenn erreur yi boo ko doo ko defaat mën nañ ne c'est c'est c'est tout pour nous quoi en fait c'est tout parce que tey nii c'est c'est grâce à lui man bon personnellement Euh, ni ma mën nii yëpp tey parce que man élève en L laa mhm. <laughs> a transformé en technicien. waaw ah, donc euh, waaw moom moom moom moom borom borom borom baax borom borom jàmm te yàlla na. Mhm. yàlla na ko yàlla na ko yàlla yokkal xam-xam bi ba pare. mu mu may mu mu gën a mu gën a mu gën a yokk euh, leeram mu mu mën a gën a mën a leeral yeneen nit bapare pare ñu tamit pense que amal nañ ko amal nañ ko loolu ñun tamit on doit faire la Euh, doxal jërële boobu noonu euh, mën ko tas tamit def vulgariser carrément topp ci ay ginnaaw pour que franchement mhm. ñu mën a développer suñu dëkk ko macha allah macha allah franchement chapeau à Mamadou Diallo bu nekk Fab Lab Orange bu Sénégal. ñu ngi lay remercier bu baax ci lépp li nga xamante ni yaa ngi koy def pour euh, pour écosistème bi tu vois communauté yëpp tu vois Euh, képp ku am sa projet et tu man à chaque fois lu ma interviewer ay nit wala may waxtaan ay nit euh, il me parle de euh, Mamadou Diallo ak ni muy dimbale jeunesse bi ak lépp lu muy def et je pense que mission bi nga xamante ni jox nañ la ko yaa ngi koy matal ba mat sëkk comme ni nga ko waxee léegi yal na yàlla taxawu bu baax tu vois ba nga xamante ni di nga mun a aider jeunes yu bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri ci Sénégal yóbbu leen fu nekk ci àdduna bi nag voilà loolu la incha allah merci beaucoup Mamadou Diallo champion champion bu mag la quoi kooku mooy bu mag pense quoi. <laughs> <laughs> alors fi mu toll nii nag presque li ñu jeex ci émission bi lan moo nekk seen ay objectif à long terme c'est-à-dire est-ce que mën nañ leen xaar yéen tey jii nii ci yeneen projet ci yeneen secteur yu nekkul sax affaire affaire tool yeeg yu demee noonu quoi. effectivement effectivement sa xalaat. waaw maanaam ñun amul sa xalaat. <laughs> dégg nga yi li nga on les appelle les disrupteurs. waaw waaw si si si macha allah maanaam gars yi fu ñu xaarulee foofu ñuy ñëw xam nga on enchaîne projet sur projet projet yi nga gis nii yëpp daanaka euh, jóguñu rek liggéey ko def ko nii non dañuy liggéey di denc moment pro moment opportun bu ñëwee rek xam nga ngeen koy soog a xam ngeen koy soog gis donc ça veut dire ñu ngi liggéey si projet yu bari pour jëmale kanam xam nga pour euh, changer quotidien wu nit yi indi ay affaires yu bees répondre ay problématiques voilà def euh, indi évolution indi innovation si si réew mi voilà. ñëpp mën gis seen gis seen bopp voilà mm. te. ñaagal macha allah alors ah, je pense que loolu am na solo bu baax a baax euh, kon ñu ngi leen di xaar ci yeneen projet yu mag tu vois ngeen génnewaat ñu ñëwaat interview ak yéen tu waxtaan ak yéen parce que foog Sénégalais yi xam ne euh, lu bari ñu ngi ko def fii Sénégal foog aussi euh, jeunesse bi nekk fii ci Sénégal ñu mën a aussi am ay model am ay repères ñoo xam ne leen di gis ba pare. Euh, comment dirais-je ñu mën a ñu mën a jàng si ñoom mën a kii si roy si ñoom quoi donc loolu day am solo trop moo tax ñu leen di fësal à tout moment alors lan moo nekk conseil bi nga xam ne moom ngeen bëgg jox euh, Sénégalais yi jeunes Sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi bëgg entreprendre euh, ci maanaam def ay innovation ak yu demee noonu ak aussi lan moo nekk seen mot de la fin parce que ñu ngi yegg si nañ ci jeexitalu épisode bi alors moo commencé par Mamadou. ah Boubacar Boubacar Euh, bon man daal conseil bu ma mën a jox ñëpp ñi nga xam ni voilà ils se lancent dans l'entrepreneuriat euh, c'est c'est pas comme nga claquer sa doigt rek voilà et tu as c'est vraiment pas possible du tout mais les américain di wax work hard pay off so dafa nekk loo xamante ne sa ñax rek moo la ko mën a fay donc domaine entrepreneuriat waaw c'est quelque chose c'est vraiment intéressant et j'incite les gens à si mettre parce que dafa nekk loo xamante ne nii am na solo trop parce que mënuñu continuer tamit xam nga di joge ci école yi ak suñu xam-xam yëpp ñu am et tout voilà dem di di di di travail pour ay yenn compagnie et parce que à un moment donné dañoo war a résoudre problématique yoo xamante ne dañ ko am ko au Sénégal tu vois avec de notre propre manière ça. dafa nekk loo xamante ne c'est vraiment pas facile mais j'incite les gens à à s'y mettre parce que dafa nekk loo xamante ne aussi moo mën a jëmale Sénégal kanam. si euh, si voilà surtout en parlant du côté numérique domaine loo xamante ne bi on peut dire que l'Afrique est euh, mais on peut rattraper en répondant exactement à nos problématiques euh, am nañ ko si boppam. et on espère tout ça et on avance parce que bu ñu naanee final aussi dañuy recréer loo xamante ni amoon na ba pare ça n'a pas de sens. amul sens voilà loo xamante ne la voilà bëgg naa ko woon partager quoi pour tout le monde. macha allah jëfandikoo incha allah. macha allah ça c'est ça c'est cool et loolu moo nekk aussi ce mot de la fin alors. El Bekri la mu nekk sa mot de la fin ak ban conseil ngay jox gaa yëpp quoi. bon conseil bu may jox jeunes yi mooy déjà ñu trouver seen passion quoi ñu xam na ñu bëgg ñu xam na ñu bëgg ñu ñu investir ci à cent pour cent quoi ñu joxe au maximum parce que comme Boubacar du ma ko waxee léegi rek affaire yi moom ça va ça va pas venir en claquement de doigts tu donc euh, travailler la sueur de son front loolu rek mooy fay quoi te bon ñun moom gis résultat yi a galéré moom vraiment au début. mais alhamdulilah léegi moom nànk-nànk rek moo ñoo ngi gis ñoo ngi gis yoon bi quoi ñoo ngi gis buddu tunnel bi. macha allah c' est <laughs> extraordinaire. gis leer gi alhamdulilah. macha allah ça c' en tout cas le dernier conseil bu mu jox jeunes yi mooy ñu gëm seen bopp ñu xam lu ñu bëgg te ñu investir si à cent pour cent te bu ñu xasee ba jël engagement boobu noonu ñu ko respecté def def def lépp lu si war te incha allah yàlla dina def xéwal. ça c' est parfait. ça c'est cool yaakaar naa euh, ñi ñuy déglu yëpp dégg ne leen te je pense que euh, dinañ jëfee loolu dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax alors Alioune lan moo nekk yow euh, yan conseil ngay jox aussi sa moromu gars yi nekk ci même domaine que yow ak sénégalais yëpp aussi mais aussi lan moo nekk sa mot de la fin. El Hadj comme ni ko gars yi waxee rek affaire yi moom yombul fenn. Hmm. te Sénégal moom ñun dañoo bon toppoo loo xamante ni peut que. am na njëriñ mais amul njëriñ mooy bon ba dugg tuuti ci euh, côté jàng jàng jàng bi nga xam ne muy am moom mooy enseignement général bi boo xoolee gars yi ni ñu koy toppee ni ñu koy toppee toppee à la après da yóbbu fan université te benn instant du ma ne baaxul mais amul benn développement boo xamante ne tey jii war na koo créer parce que boo xoolee jeunes yu bëri soo lañ sëgg yaakaar et il est temps tamit ñu ñu ñu essayer changer jàng bi te xoolaat gars yi ni ñi ñi nga xamante ni moom la ñuy joxe bon xam-xam yi jeunes yi. Mm-hmm. ak ñoom ñu mën a mën a mën a jëriñu ci xam-xam boobu ba mën cee développer suñu réew que comme comme comme comme ni ma koy waxee rek ñun suñu projet toolu kër bii nii dafa nga def lu nga xamante ni man jàpp naa ne bay di dundee ñun war nañoo mën a jëriñ quoi. Mm, exactement ça nga xamante nii mën nañoo développer ñun suñu réew déjà ba pare déjà xam nga am na ku may waxtaan mu ne ma affaire de impôt yi dafa bëri fii dañuy fay taxe fii dañuy fay lii dañuy fay laa mais imaginez ñun ñu commencé di bay di dundee ku nekk yor sa micro jardinage. waaw waaw ça c'est sûr li ngay dépensé dootul bëreeti. dootul yaa ngi def lu nga xamante ni mooy di koy di nga dundaat ba pare di di di am sa ay yu ndaw. waaw ça c'est sûr naa ni loolu suñ ko commencé rek ndànk ndànk ndànk ndànk dina dem ba nga xamante ni tey jii. Mhm. dina def bu nga xamante ni ku nekk dina ci gis boppam. waaw culture la rek. te loolu kese lañ soxla. Mhm. loolu kese lañ soxla. soxlawuñu tubaab yoo xamante ni nii voilà pour ñoom la loolu du pour ñun. je pense que daal affaire yi fi tey xam nga terre mère bi fii la donc. ñu essayé defaraat suñu bopp te gëmaat suñu bopp tamit gëmaat suñu bopp topp ginnaaw nitu kenn koo xamante ni nii loo xam ne waruñu ñun jeune lañ nañu xool ki nga xam ne mën nañu yokk xam-xam ñu topp ko te te macha allah mooy comme exemple jaalo te man franchement du ma ko bàyyi di wax Diallo ñun am te suñu amoon mel ni moom ay milliers milliers milliers de doy. waaw waaw ça c'est sûr ça c'est sûr franchement. te franchement te tamit yow na parce que vulgarisation bi ngay def nii rek. Mm-hmm. dina permettre que ñi nga xam ne xamuñu woon au moins sax dinañ xam jéem a xool fi ñu teg ñaan tamit gars yi votel ju te xam non dinañ leen votel dinañ leen votel moom moom moom dinañ ko wax léegi nga xam ne war nañ ko ko dinañ ko wax léegi léegi léegi dinañ ko wax léegi incité Sénégal yi nee naa la dix millions de votes lañ bëgg fi mu toll nii tu vois je pense que war nañ ko mën a am waaye merci ah, beaucoup allez merci champion allez François lan moo nekk sa conseil yi ngay joxe ak sa mot de la fin François. man bon conseil yi may joxe mooy que ni euh, surtout surtout jeunesse bi jeunesse ndaw il faut jamais abandonner te tamit euh, nit moom da ngay xam li nga bëgg rek te te boo xamee li nga bëgg rek si dem quoi te lu ma wax souvent tamit sama sama yenn frères yi bu ñu tayal wala tamit di xeeb affaire yooyu noonu. xam-xam du doy même boo bu fekkee dañ koy uti ji sax demal nga uti ji ko lu mu lépp lu mu la jaral demal nga uti ji ko. si si distance bi tu tout lépp la jaral demal demal nga uti ji souvent sama yéen booy voilà day naan non Fab Lab dafa sori dafa sori man leen xam-xam si boppam lu mu la lu mu la jaral demal jëli ko par exemple day jékko en fait te a à travers à travers genre comme comme comme Diallo Aliou wax na ko. <laughs> le ay royukaay lañ ko en fait. ay royukaay moom ñun ñun peut-être ñun suñu suñuy âge ba ñuy am ay sept ans dis ans ñun loolu amuñu ko woon suñu mag yi ñoom lan lañ xamoo wala suñu papa yi suñu liggéey xëy ñëw wàcc liggéey xëy ñëw wàcc donc suñu tout toute notre vie on l'a passé dañ koy nekk ci mbedd bi taxawaalu wala dem jouer football wala defi sport wala wala suñu yite dañuy jàpp ne voilà c'est ça quoi en fait c'est ça mais non c'est pas ça il faut il faut fight xeex un day fight ci sa life fight pour ñëpp partage surtout l'esprit partage di di li nga xam nga xamal ko sa morom noonu la tamit la sa moroom di ko xamalee keneen ak keneen ak keneen ak keneen et ça va faire évoluer vite fait rapidement euh, ci sa ci sa environnement te aussi nit ki en tant que en tant que tel muy dégager benn onde ba nga xam te ne c'est positif yow juste euh, même sax bu fekkee mënoo leen apporter benn benn benn touche mais juste yow sa sa bopp yow. Mm-hmm. dal dégager benn onde bu positif. si si ngay sourire. Mm-hmm. voilà loolu dina dina la gën a mën a permettre tey dina ah di mii de ni mu mel nii war naa mën a mën a roy moom. et tu vas changer beaucoup beaucoup de personnes et faire le évoluer euh, le Sénégal surtout côté projet bi aussi euh, nañ nañ nañ buñu buñu bu ñu mhm. bàyyi mu sedd ça c'est sûr bu ñu bàyyi parce nañ nañ jàpp ba mu dëgër këcc mhm. jàpp ne lii nii fii nii ma jàpp nii dinaa si réussir mhm. et di et d'ici quelques années dinaa si réussir et euh, dinaa si am li ma bëgg carrément quoi macha allah parce que c'était ça et aussi ñu ñu ñu ñu ñu ngi lay féliciter sur nice et et communauté bi yëpp Mm-hmm. xarala mm-hmm. wolof tech et d'autres d'autres gens ñoo xam te ne ñu ngi def liggéey bu rafet ci ci réseaux sociaux yi franchement ñu ñuy motiver aussi à ce que ñu mën a ñu mën a ñu mën a continuer mm-hmm. vraiment merci et chapeau à vous. ok merci beaucoup yéen aussi euh, ci li ngeen accepté ñëw partager euh, li nga xamante ni def ngeen ko ak ñun tu vois ak communauté bi yëpp. et je pense que nekk na loo xamante ni euh, am na solo trop et je pense que voilà communauté bi yëpp dégg nañ ko et je pense que ñëpp dinañ ci jàpp alors. lien de vote bi nag euh, dinaa ko def ci description podcast bi euh, nga xamante ni euh, képp koo xamante ni bëgg na voteel sama gars yi tu vois dina mun a dem voteel leen tu vois nga xamante ni dina leen mun a tax ñu mun a dem représenter Sénégal tu vois gagner ndam li tu vois parce que je pense que seen am aussi mooy ndamu Sénégal tu vois et projet la boo xamante ni investir nañ ci lu yàgg-yàgg lu bari bari bari donc tey c'est normal que tey ñu soutenir leen tu ba nga xamante ni euh, dinañ mën a yegg fi nga xamante ni bëgg nañ fa yegg alors man personnellement dinaa ko partager ak ci sama réseau yëpp tu vois maa ngi ñaan bépp auditeur boo xamante ni mu ngi déglu bu fekkee ne sax cent personnes ngeen tu vois te xam naa ne ëpp ngeen ko tu vois ku ci nekk na jël tuuti ci temps voteel toolu kër tu vois travers lien bi nekk ci description podcast bi soo voté ba pare si possible nga partagé waat ko encore ci sa réseau yi pour que sa yeneen xarit yi aussi jot ko euh, pour mun a voter ñoom tamit pour euh, projet bi nga xamante ni mooy toolu kër parce que jàppale leen mooy jàppale suñu bopp je pense que keroog bi ñu ñëwee euh, gis Sénégal qualifié gagné gagné coupe d'Afrique bi on était hyper content tu vois ñooñu ay jàmbaar leen ci football bi mais ñii aussi ay lion leen ci Euh, technologie bi te bëgg nañu représenter ci àdduna bi ci yoo ci àdduna bi yëpp donc ñun aussi war nañ leen jàppale comme ay douzième gaynde comme ay supporters bi nga xamante ni dañu mën a euh, yegg fi nga xamante ni bëgg nañ fa yegg donc loolu moo nekk message bi nga xamante ni moom laa doon lancer à tous les Sénégalais yi ñuy déglu euh, moo xam nga ñu moo xam ñu nekk partout ci àdduna bi donc loolu lañ leen di lancer comme message pour nga ngeen defal ñu ko jàppaleel ñu waa toolu kër ci boppam allez les amis kontaan naa bu baax ci yéen Euh, émission bi nag fii lañ ko yemale comme gars yi liñ naan lu duuf ci nag bi xajul ci Chine bi tu vois dañ koy yemale fii xam naa ne du ñàkk ni incha allah dina ngeen ñëwaat ci beneen euh, ci beneen yoon ci yeneen innovation yi nga xamante ni yéen ciy liggéey incha allah euh, dinañ ci àndaat ak yéen n'est-ce pas <laughs> en tout cas merci beaucoup ñu def noonu pareillement merci beaucoup allez merci beaucoup allez ciao Thank you. Okay, merci. Allez, bon week-end. Allez, bon week-end à toi aussi.